topp jàpp ba la mu bëggoon dee waay man neexul ma ragal doole gaay xam nga jooyu ko jikko jëlu doomu Adama Njaay namoon naa namoon nga ma namoon na namoon nga loo ragal doole gaay nandila Bumani Bumalagi Takdamay Hindi Yasay Ganagit nangyari ka Inarangkap Dezar Degar jaling Dejaling Bakay sama Bakay dili kama Alkatayiri ko Jumfuri kamara Beni yaraga golden cup Defeated in Sadie Bangal Modi capital Nam nam nam nam nam nam Ah, jali jai Bayu kala mala yo Jali ben mogan yar Ham nga ne nam man tala nam nam tala Jari pura bulen koy dogodo Jari pura bulen koy dogodo bi sa jiw bi njaay ñëpp bëggal muy sa maam sa maam a reere jaaw na man na man na man na Chicago, Chicago, Chicago. te pregunté ca mbokk ba léegi ah ñu ngi fi macha allah tarkakaala sama xaala xene gis ngeen ko boo leen gisee kanam gi xàmmee ngeen ko ci l'artiste l'international euh, muy sama papa c'est tey mu daal di ñëw fi nga xamante ni mooy CDEPS bu Thiès tey lan moo waral teewaay bi tey fii si Thiès. dégg nga. tey lan moo waral teewaay bi tey CDEPS Thiès. waaw jërëjëf dafay sunu waay. bëgguñu trop ñu bëgg ko ñu bokk région de Thiès lu ma xawle dañoo war a ñëw teew. Euh, comme ñoo bokk Thiès ñoo bokk Sénégal ñoo bokk lépp fu mu xewle ni ñoo war a teew fu ñu xewle dañ koy woo mu ñëw teew loolu mooy solidarité bi moo ci nekk ci Thiès ñun ñëpp benn lañu merci. tey lan ngay doyal xal sa sa doom yi nga xamante ni tey ñu ngi ñëw nekk si milieu bi. waaw ah, di leen encouragé di ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba ñu tal li ñu def yokk améliorer seen situation ba mu gën a neex parce que bu neexee ñun ñëpp ñoo ko bokk. ayca bu nexé ñu bokki yi ñeena ah, ngi seen émission bi nga xamanteni néna nee ñu ngi fi nga xamanteni moy mooy CDEPS ba légui tay ñu togg ak ki nga xamanteni néna na mëna ni manager la ci Jali tay lan nga ñu war wax ci ki nga xamanteni moy l'artiste bu mag bi di Jali waaw boo ma posé question bi damay sawar ci ndax man ma nekkon ak Dialy nekkoon manager am and ak Jali liko bokk Fatou Mbaye Diop moy dañu dajé Thiès dem Banjul mo am serigne bu len yónnee Touba ñu maye leen en 1979. Jali nekkoon Thiès nekkoon ci benn groupe théâtral benn troupe boo xam ne danoon joué nekk fa di joué bongo faatu mbay jóob juddoo ci famille njéwal def na juróomi at ak usa yàlla boole leen ñu ñëw daje Thiès di wër di tëgg ndem si yàlla Amadou mbay Loum bi ne RTS gis leen yóbbu leen El Hadj mbay jël leen super ndaje ñu woy fa mbëri keroog la ñëpp xam kuy kuy ñëpp Sénégal gi yëpp xam kuy Jali ak Fatou mbay Youssou Ndour gis leen mu neex mu neex leen mu woo leen produir leen la première cassette c' était en 1994 au studio Xippi boobu y avait les Modou Fall y avait les Alinguer Modou mu ndaw donc après ñu nekk ak ñoom di def tournée ma nekk ak ñoom nag on a fait une a fait tournée nationale et on a été la sous-région yóbbu naa leen Gambie ñu war fa def benn fan ba ñu demee leen téye ñu def ñetti fan ñu continuer ci lancé boobu en 95 ñu waat beneen cassette nekk sur la même lancée tey bu fekkee dañ leen ñëw di leen sargal ñun Thiès waaye dinañ ci kontaan dinañ ci sawar vraiment suñu xol dina ci sedd ndax neex na ñoo liggéeyal ànd nag ñoom nag fu ne ci Sénégal ànd nag ñoom fu ne liggéey nag ñoom si ñi defal Jaleek Fatou Mbaye mhm. prochainement bëgg naa ñu defal ko aussi beneen doomu Thiès boo xam ne euh, Secka la pour le moment fofu lay yemagum ba ngeen delu ci wat gis ngeen ko tay ñu ngi taxaw ak ki nga xamanteni mo waral tay bëss bi nga xamanteni ni mom moy sargal ki nga xamanteni moy mooy bay ak Dialy Père nuy nañ euh ma ngi leen di fay Merveille di euh, di fay tous les euh, téléspectateurs de de Merveille Thiès. tay lan mo waral ngeen tan li nga xamanteni ni mom moy mooy comme ki nga xamanteni moy mooy ak Fatou bay waaw euh, choix bi dara waral ko luddul dul lepp lu mu liggey lépp lu doomu Thiès liggéey lépp lu askanu Kajoor liggéey ak lépp lu doomu askanu ca ca Kajoor liggéey dañ ko war di fësal te euh, Fatou Mbaye ak Dialy day ñoo xam ne nii même ñun bu fekkente ne seen temps ñun xale lañ woon bégal nañu suñuy papa bégal nañu suñu yaay donc normal la pour que tey ñu sargal leen delloo leen njukkal euh, mun naa ne acte un la parce que am na fi yeneen daanaan yoo xam ne ni aussi fas yéene fas yéene nañ dalal leen aussi ñoom tamit sargal leen parce que tamit ko fi au niveau national international donc muy loo xam ne nii ñun dañ ci war a taxaw euh, képp kuy yore média Thiès aussi war ci taxaw sama FM Zik FM Thiès nag nekkawu fi lu dul taxawu Thiès taxawu jeune Thiès taxawu magu Thiès taxawu lépp luy artiste su Thiès. macha allah gis ngeen ko taxawu jeune Thiès taxaw est-ce que mën nañoo xaarate aussi li nga xamante ne mooy yeneen artistes ku ci mel ni Seka ku ci mel ni keneen ak keneen euh, waaw parce que ñun on avait deux Euh, ngéwél gëstu muy jaleeg Fatou Mbaye mais comme ñaari ténor yooyu ñoo fi ne mën naa ne dañu sànni kaar rek mu tombé ci jaleeg Fatou Mbaye muy acte euh, acte deux incha allah ci dinañ euh, lañ ci bëgg a dalal waxtaan nañ ci léegi nii rek parce que mu ngi fii actuellement waxtu nañ ci léegi donc yoo xam ne yéene boo xam ne fas yéene nañ ko jàllale incha maa ngi ci doon waxtaan aussi ak ki nga xam ne moo yor lépp muy Sey Latir di un ami un frère et que incha donc ce qui pour couvrir événement parce qu'on est dans le même milieu nous donc dañ encourager aussi vous êtes jeunes et vous avez l'avenir devant vous l'essentiel est que vous leen quoi, en toute responsabilité en tout équilibre na euh, respect euh, considération aussi et je vous félicite Jadi Ahmed Jalil yaa doole yow yaa baax ba tey. baay loo ragal dalay gaañ du ñu la muñ loo muñ mu jeex mang ma sa tango Jangan lupa bang benji Jangan pakai dulu jangan mar

kon xam nga ñun day daal di liggéey. monsieur Diop kontaan naa ci yow. ñu di ko wax Thioub. waaye Fatou Gueye sama doomu ndey di sama xarit. ah man de dama laa bëgg yóbbuwaat Thiel dama ko ni ah loolu de war nga cee gaaw gay gay Jacques. ndeysaan. moom tam loolu la def. kon lu baax rek moo am solo. moo am solo. tey nag moom waxtaan la rek. ba mu jot Fatou Gueye bu baax. loolu rek la DG. chéri maa ngi kontaan. kontaan naa trop Thierry Ahmed Diallo. ndeysaan kenn du yow. di gërëm itam moomu yaay muñ kat bi. fa ma nekkoon rek lay delluwaat. ndeysaan kon Jali. waaw xaaral tuuti Jali ñëw ñu delluwaat fa nu nekkoon. waaw ndax dana yëngu dana réer. ndeysaan ndax asana ngoogu di yëg. yëngu na de.